yow sunu boroom salli ala nadd bin yal na nga dolli taraanga ci soppe bi nga xam ni anarta jay ba yow sunu boroom leeral nga xol yépp ci dara jaam musalliman yal na nga ko dollee musal wax kooku di muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyu tawba mooy yonenteeb njéggal ba walaali yal na ko eggale ca njabootam nga wal asxaabi àggale ko ca saxaaba ya bi tagraari te di ko yeesal ak yeesalaat moom teraanga ak jàmm ci yenent bi ak ca saxaaba ya ak ca njabootam nga amin yow sunu boroom yaa waahibal falaahi yaay may ak texe wal asraari ak mbooleem xeeti sekkere ya nga xam ne mooy joxe ngërëmal yàlla amin salli ala man yal na nga dolli teraanga ci jëmm ji nga xam ne bokk na ci ay turam ariisu aji xërja ci doom aadama yépp am jàmm àddina am jàmm alaaxira te xëram googu xabla aleykum lu jiitu aleykum jaca laqad jaakum rasuulu mina anfusikum asiizun aleyhi maa anintum xarisun aleykum bilmuminina ruufun rahimun fa in tawalaw faqul hasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azimi ja nekk ci alxuraan lu jiitu aleykum joojo ak suhu safaanab xër muy safaanab xër gu ëpp gamu amoon ca bindeef yépp muy ñépp dem ajjana am jàmm àddina am àllaaxira jàmm loolu moo ma sa nekk ca moom lu jiitu aaya joojuy wàcc muy alxariisu xër ga ñépp xër ga mu xër ngir ñépp am jàmm musalliman te nanga ko dollee musal wa alihi àggale ko ca bokkam ya wa sax bi àggale ko ca saaba ya wa dulla bi yal na nga def madib tegtalaa kon àlla sawaahi lëh ci lépp luy leeral yoon wi nga xam ni moo jëm ca ngërëmal yàlla di jëme nit ajjana amin muy lislaam salliya yal na nga dolli sa taraanga salaatan taraanga joo xam ne maaha day ànd ak taraanga ja tasliimu ak musal alallazi jëmale ko ca sang bu tedd bii nga xam ne sumaatuhu bokk na ci ay turam maxloomu ku ñu ràññee muy ku ñëpp xam muy muhammad alayhi salaatu wassalaam wa ko eggale ca bokkam ya wa sahbi àggale ko ca saxaaba ya yow sunu boroom wa ballixaa yal na nga eggale jotale nas mi sama woy wi muy sama téere bii ma nose ko di ko woy jëmale ko ci màgg ak yàlla gi ak tedd ngaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama téere bi yal na nga ko jotale ilahi ca yonent ba xaalisatan mu egg fa ànd ak ak sell li yab luxaa ngir mu jot fépp mën a egg fépp ca wàllu ya ca gaa yu baax ya sunu boroom gërëm ko amiin yow sunu boroom yaa man yaay buur bu tedd bi nga xam ne lëwoo yaa moom al ayaamu bis yépp yalin moom wa suhuuru ak mbooleem weer yépp yalin moom yow mu tedd moom di sunu boroom salli ala yal na nga dolli taraanga jëmale man ni nismuhu ca ka nga xam ne bokk na ci ay turam sahiiru ku siiw ko ka ñépp ràññee ci lépp loo xam ne ku ca teg sa tànk te bàyyi da nga am ngërëmal yàlla muy muhammad alayhi salaatu wassalaam amin wasalli man alayhi yàlla na nga dolli sa musal ga ca moom fil aali te àggale ko ca bokkam ya alkiraam ñay waroom ak tedd wa sahbi yi nga àggale ko ca sahaaba ya yaa man yaay buur bi nga xam ne xuyóoruka sa xiiwal ya sukuraam moom la ñépp war a sàkku yal na ko may mboolem jullit ya amiin